PM nag c'est quoi le meilleur scénario mais xanaa PM robot la. cest noo mën a nekkee PM nekk candidat. dafa war a décharger non mais attends may mun a mais élection bi c'est dans six mois. même pas nga war a wër Sénégal gépp mu war a wax ak kii yëpp war a préparer sa campagne war a liggéey fooy nekk PM. soxna si PM liggéey la di PM liggéey la à plein temps nga bëgg a nekk PM nekk candidat loolu loolu mooy waxu lan. mais le président xanaa lenn mooy da mooy xanaa non xanaa lenn. kon léegi da ngay nekk PM pour le non rek mais doo doo ko liggéey moom. mais le président buy dem élection il est président il est candidat même bu ne mais président la république dans un pays mooy liggéey président nit ñi dañuy liggéeyal près dossier yëpp jox ko mu signé un président la république signé rek lay def. mais le PM aussi c'est pas lui qui a la non xaar rek mais non bokkul non non c'est différent PM mooy coordonner l'action gouvernement non PM c'est conseil liggéey la. je te xanaa lenn bis bu ne déggee ñu ne Amadou Ba continuer nekk premier nekk candidat mooy xanaa dafay jël chargé yi ko benn intérimaire muy liggéey liggéeyu PM bi moom mu nekk candidat mais mënul nekk Dakar di assurer loolu PM ba pare nekk candidat. sa pronostic bi ñëw na.